auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallam wa barik ala nabiyina alkarim sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu daairat muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ bu so ak mbooleem bureau daairat muqaddamatul xidma di jottali ay ndigal yu bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale ay naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam naalal ko yoonu murit yépp mu àggale ko te nu ànd kook moom sëriñ bi xam nga ne ñëpp gis ngeen ko dégg ngeen ko mu soññeewaat ci taxawaay yi nga xam ne mbooleem taalibe yëpp war nañ koo taxawaat ci tawat ji nga xam ne moo lëmbee àdduna bi te yaatu lool ñu gis ne tawat ji dafa jógaat bu baax a baax ci àdduna sépp waaye jógaat bu baax ci réew mépp jógaat ne bu baax ci Tuubaa gi ñu nekk sëriñ bi nag wax ne mi ngi digalaat bépp taalibe ñu gën a fagaruwaat gën a fonkaat ndigal yi nga xam ne kër docteur joxe woon nañ ko ci wàllu moytu dégg ngeen ni mu ko waxale boppam ci làmmiñu sëriñ basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir digal daairatu muxaddamatul xidma itam ñu def ci bayaan ci ajjuma ji weesu yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko ñu yë jóg nag ngir ndigal loolu ñu jottali ko ñëpp fub bi mën a nekk ci réew mi rawatina nag ku nekk Tuuba sëriñ biir wax ne taxawaay yi nga xam ni moom lañ doon taxaw ci yoon wu njëkk wa nañu taxawaat taxawaay yu ko yu ni mel te gën koo dëgër ci yoonu ñaareel bi nga xam ne faw ji maw ji bii amaat nii indiwaat na ko ci loolu nag daa daayiratu muqaddamatul xidma jël na ay matuwaayam ci ndigalul sëriñ bi ci képp koo xam ne dangay ñëw ci jumaa ji sëriñ bi nee na digal na la na nga takk masque bala ngay ñëw ci biir jumaa ji ku ma foo mën a jógee rek booy dugg ci jumaa ji na nga takk masque loolu ndigal la loo xam ne sëriñ bi joxewaat na ko boo ñëwee ci bunt bi itam nga raxasu wala ñi yore sel ñu jox la sel nga raxasu te mbooleem fagaruwaay yi nga xam ne kër docteur joxe na ko ngir ñu fagaru man koo fegoo ci tawat ji kenn ku nekk def ko ci loolu nag daayira bi mi ngi ci soññi boppam di ci soññi bokki taalibe bi yëpp ñu gën cee taxaw te gën cee jàpp te xam ne sëriñ bi ndigal li mu ñuy digal sunu bopp rek a tax mu dañu ko digal bëgg ñu jariñu tey jariñu ëllëg bëggal na sunu mucc rek moo tax mu de mu dañu ko digal kon nag mu rek dégg bu sëriñ euh, bi xasee ba joxe ndigal amatul wenn warugar warul jëfe ndigal loolu kon ñu ngi ciy woo sunu bopp di ci woo sunu bokki taalibe bi yëpp rawatina nag képp koo xam ne jóg nga ngir jëm si ci jumaa ji sëriñ bi it nee na ñu moytu jaxasoo bi bu baax a baax rawatina ci dugg bi ak génn bi ak nekk gi ñuy nekk ci biir jumaa ji lépp loo xam ne ak euh, lu ñu war a sàmmonteel la rek ñu sàmmonteeg moom waaye nag nee na ñu gën a sonn ci cet gi cet gi mooy raxas sunuy loxo ci kër yi raxas suñuy loxo ci buntu jumaa ji bu nu agsee loolu lépp ak it kuy ñëw ku nekk nga boo ko mënee nga sol lu set ngir aar sa bopp waaye ngir aar itam ñi nga xam ne ñoom ngay dajal ci barab bi kon nag ñu ngi soññ ñëpp di soññ itam bokki taalibe bi yëpp ci taxawaay yi nga xam ne amoon nañ ko ci yoon wu njëkk wa ñu amaat taxawaay yu ni mel ci yoon wi ndax mel na ni yoon wi kat moom mat a gën a fonk ay taxawaayam ndax mbir mi jéggi na dayoo ci àdduna bépp waaye jéggi na dayoo ci réew mi waaye jéggi na dayoo itam ci dëkk bi ba tax na nun ñëpp nanu maase àndandoo tënku ci ginnaaw sëriñ bi fas yéene wooyee ndigal li nga xam ne moom lañu sëriñ bi jox su ko defee suñu borom danañu aar sàmm ñu ci tawat ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.